waa koy jërëjëf ñëw nañ suñu dëkk bii tey Touba seet suñu mag ju baax ji suñu kilifa di lépp ñëpp ndax mu bés bi war la geestu te gisuñu waaye gise bi def nañ ko li mu laaj mooy xam ne sëñ bi du coono bu mu nangu ñu teg ko waaye nag alhamdulilah bi nga xam ne moom ci boppam sant na gërëm na ñaan na di fedd li tànk yi ñu ñëw te mu dalee woon ci diggante suñ maam ak sëriñ bi suñu baay ak sëriñ bi suñuy mag ak sëriñ bi sëñ bu mag bi moo tax ma may wax ba yàlla def tey ñun ñuy dox tànk yooyu ci nga xam ne ñoom la fi bàyyi te duñ ko bàyyi ba bañ koy bañ ñu leen di fekk di ndokkeel murid yi ci bés bi di ndokkeel jullit ñi di ndokkeel réew mi ndax sens la ci ñoom. waaw léegi nag euh, dañ daan ànd ak délégation bu mag ren nag ñu ànd ak ñaar ñii ñoo xam ne ñoo gën a xeej ci tey muy sëñ Bassirou bii di ministre di mbokk di xarit di loxo sëñ bi. te sëñ bi nangoo la doxalee sama diggante ak moom ku moom muy guddi muy bëccëg ma indaale it ma it sama sëñ Basiiru ñaas di sama doom moom it mu ñëw ba mën gis sëñ bi loolu tax ma segg leen waaw sëñ Basiiru ñaari sëñ Basiiroo fi ne macha allah. Ahmadou Bamba it mu ngi ca kër ga. jërëjëf sëñ bi laajte na ko. laajte na ko dana ko déwén ñu indi. incha allah incha allah.